yow sama doom maa ngi lay dénk nga denc si sa te xol bu baax fii ngay dox xàmmee ñi bon ak ñi baax. yow sama doom maa ngi lay dénk nga denc si sa te xol bu baax fi ngay dox xàmmee ñi bon ak ñi baax yow sama doom.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 wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan seen émission bii di seen site bii di Rafah TV tey nag ñoo ngi fii ci aéroport international Blaise Diagne ñu ñëw fii ànd ak yeneen site la Maison du Coran ñëw fi ngir teertu suñ donga bi donga bii nga xam ne yàlla dafa dogal moom moo demoon fële ca Kuwait teewal fa Sénégal ci jongante boo fa amoon ñu doon rawante moo koy moromam yu bëree bëri yalla dogal nag mu def njambar gu reey reey nak waye nak jitu bo gis rek amna rawante bo gis rek amna ñuy jiitu yalla dogal wax yalla waye nak nag wut ginaaw ben yoon ñu ñëw fi ne diko tertu teertu fekk ak mbokk yu bare ku melni ne sëñ Alxaaji Cheikh Ndindi Touba Cheikh Omar fotetu Cissé bayiko ba fele ci Mbour Omar kan bayiko fele ci Dakar Serigne fallu ñang sëñ Daara Mouti bayiko ba fele ci Dakar ak yeneen sëñ Daara yu bare bare ñu ñëw fi rek ngir mbekté bi nga xamne ñun mom am ñun ahlul Quran ويقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تانا نون لي موي سوني بتيرو كون نون فاو نيو ني نيك سي آه، والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك تا نون واخ دغ يال لي موي ليغا خامن موم لا يالا واتي صلى الله عليه وسلم نيو تي نبي نبي سبا غون غودي بتيك كون فيب فو خامن نك القران ديم نفا تا سوني تانك بنو فا ديم ان شاء الله دا نفا اندك موم نيو في ان شاء الله فاسينا ام اي كادو يو نيو رك بالا نيو تيخليكو سي لا حاج شيخ ندي موم لا نيو فيتو سوني تامو نيو فاسينا واخ لاج كو ان شاء الله لمو تاخواي بي في اك لو وارال ديك waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. Mm, ngi di nuyu di nuyu uh, mbokk yi fi teew yëpp bàyyiwuñu kenn. waaw li waral suñu teewaay fii de mooy ni nga ko waxee léegi ci sa ubbi ci ubbite gi. Mm-hmm. Uh, Serigne Modou Mbacke mi nga xam ne mooy doomi Serigne Mbacke moom Cheikh Mamadou Fadel uh, yàlla dogal mu demoon Koweït ci jonganteem alquranul karim mm-hmm. ba mu fa demee def fa jaloore ju rëy. macha allah muy e, yàlla dogal na am njàngam kenn nattalu rafet gi e, ya ci aju yëpp xam nañ ko gis nañ ko bu baax a baax a baax ñëpp lu ko dafa tolloon nag concours change la concours moom ab jongante bu ne rek change la waaye li ci am solo dëgg-dëgg moom mooy bu doonoon tey am njàng wax naa ko sëñ Modou sëñ Modou ñang mi ko doon jàngal di sëñ daara koy ziar Euh, bu doon te yàlla dafa dogal mu jàng ñun ñëpp ñu ne ah bettuñu woon moom du jàll nga xam ne ñëpp dañ naan du jàll waaye ñëpp amoon yaakaar ci mu bokk ci cinq premières yi lan moo ko waral mooy njàng njàngin bu kon li am solo mooy feeñal na liggéeyub sëriñ daaraam mi nga xam ne taxaw na ko euh, njàmbaar gi nekk ci moom feeñal na ko moom it feeñal na ak njàmbaar sëriñ Modou bi muy dem mu wax dëgg yàlla xawoon nañ ci am ak jaaxle ndax euh, at yi mu toll ba noppi dem moom dong ci koo xam ne mus sa génn mussa sa mus sa tukki euh, itinéraire bi mu jaarit xawa xaw a doy waar tuuti léeg-léeg rawat na ci mag sax waxuma la waxuma la gone mooy Ethiopian Airlines xam nga dañuy escale euh, Bamako muy Mali foofu moom duñ fa euh, yàgg ndax jël naa ko ay yoon dañuy jaar rek jàll waaye boo demee Addis Ababa aéroport bi dafa rëy lool lool ba jéggi dayoo ci noonu Addis Ababa mooy Éthiopie. Éthiopie boo fa demee escale bi diggante bi ngay eh, boo dee da ngay transit diggante bi nga xam ne moom ngay jaar di jàll. da dul yàgg ci boo xam boo xamut gate yi mooy ban porte la sa avion nekk kañ la sa vol di départ. Mhm. nga xam ne diggante boobu. ñu bare bare bare bare ci ay mag dañ fa am jaaxle. wa yàlla defal ñu tawféex ñu am mu am kum àndal koo xam ne fii ko ko mu am taxawaay nga xam ne yéene sëñ daaraam ak sëñ daar yëpp waaye rawat na sëñ daaraam mhm. amoon yéene lool ci accompagner ko ñeewantoon ko lool mhm. yàlla defal ko tawféex mu ñëw am kum àndal mhm. jébbal ko ci loxoom ba mu àggee ca barab ba it wax dëgg yàlla mbokk ya nga xam ne ñoo fa nekk ñu leen sant bu baax seen taxawaay di ko di loxol sëriñ Jaafar Bousso ak mbo ambassade ba ak mbokk sénégalais yi nekk foofu yëpp euh, euh, amatul wéetaay bu mu yëg dëgg-dëgg donte nag moom feeñul woon benn woon ak wéetaay ba muy ànd ak sëñ Modou ñëwit fii maanaam courage la àndal boo xam ne mel ne bu doon dem moom dong it amul problème daal moom ñun ñoo yëg problème yi waaye moom mosu yëg problème bi loolu yi nag ak ak ak ak la eh, def fa jaloor jooju mu fa def ci ci taxawaay bi loolu moo waral ne euh, nañu àndandoo ñëw teeru ko bu mu ñëw mukk mel ne dafa dafa amul ndam am na ndam lu rëy bu ñëwee na yëg ne mhm. ñi mu ñi mu bàyyi woon ginnaaw yëg nañ effort yi mu def yëg nañ jaloor ji mu def yëg nañ njàmbaar gi mu def mhm. ñu di ko encouragé ngir ëllëg incha allah taala waaw loolu moom waral dëgg-dëgg euh, sunu sunu sunu teewaay fii. mel ne sëñ Modou mbakk mi nga xam ne yàlla mi dogal yaakaar naa nee nañ fukk at ñett la am moom rek mu jógee fii dem ba Kuwait ngir concours alxuraan ko def te ànd ak kenn est-ce que loolu nekkul mën am lu mu ko yàqal ci biir wala jongante amul ay ku nekk ko xam ne daa ànd kenn wala moom xale bi moom dañuy xool ci njàng mi njàng ñu mën cee sukkandiku woon koo àtte. waaw bu dee ndax mën naa jeexital ci moom mm. maanaam bépp compétition dafa bëgg ay supporters compétition bu nekk boo gisee kuy compétir saa bu ñu la fekk see ñaare nga gagné yomb ci yow mooy da ngay sey supporters ñoo fa ëpp loolu ko waral ku sañoon saa buy compétir am ay supporters rawatina nag sëriñ daara bi nga xam ne moom lay taxawal guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg ak lu mën di xew rek dana am dana am effet moral maanaam dana am athar nafsi boo xam ne euh, dana yëg léeg-léeg absence ci ki nga xam ne moom daw tàqali ko moom guddi daw tàqali ko moom bëccëg moom ab boo xam ne tàqali ko naa moom ay fan waxuma la même bu compétir woon dana yëg loolu waxuma laa nag bu koy def ba noppi di compétir dana ko dana ko yëg loolu a ak taxawaay am solo yi xam ne mbokk taxaw nañ ko waaye du am du ñàkk am am lan moo ko waral moom état dañ cey defut benn effort ci jëm ci wàllu état bi wala ci kilifa yi ba tax ñu boole ko sëñ daal bi ko doon jàngal ba bàyyi ko moom dong muy dem lan moo waral loolu yëf dafa bette wala ñàkk toppatoo la waaw na ay ay ay ay ñàkkoon a xam la rek Mm-hmm. ay ñàkkoon xam la ndax euh, euh, kilifa yi nga xam ne ñoom euh, wax dëgg yàlla mbir yi ñoom la waroon a mënoon naa jaare ci ñoom bi ñu ko yëgee am nañu leen ci metti lool. Mm-hmm. ñu am nañu ci leen ci metti lool am njàngale it ngir ëllëg am njàngale ngir ëllëg mm-hmm. ndax ay njuumte léeg-léeg da ci am yoo xam ne ñàkk àgg ci kilifa yi la ku mel ne moom faran bi nga xam ne moom la tasjil dañuy wax ne boobu amul muraafiq faran boobu amul waaye faran boobu ay moroom yi euh, tubarkal la ay ay ay ñu ay ñu ay magi jëmb rek ñoom ñoo fa nekk moom moo fa yor moo fa yor bi mu yor nga xam ne kon ñoom même ñoom buñ buñ buñ buñ buñ xamul loolu it mm. ba tax ñu ne faram boobu ko wax si du la muraafiq mm. la ko war la war ci euh, ñun ñi nga xam ne ñoo am candidat mm. ci taxawu euh, ab sëriñ daaram dégg nga waaw nee na si nee na sax am nañ ay muraafik maanaam même buñ bu dul woon maanaam xëy na surut yi euh, concours moom day am ay faran yoo xam ne faran boo xam ne boo ci bokkee mm-hmm. muy bii ak ak quran ak ak ak euh, mm-hmm. euh, soo ci bokkee mm-hmm. doo ànd ak muraafik waaw da ne mag nga kon ne moom yëfi mag xale nag dé def waaye bu ko defee ñun ñu am candidat nag ban yan effort la ñu war a def ba ki ko war a ànd ak moom entraîneur bi war a moom ànd ak moom équipe boobu entraîneur amul bi war a ànd ak moom ànd ak moom loolu ay ay ay ay yoo xam ne des na ko répété loolu da amoon na ci soxna Ndata Cissé ak Serigne Cheikh Diop mhm. waroon nañ fee dem Amérique boo xam ne yoon yi ñu jaar procédure bu ñu jaar pour seen visa bi bu am na beneen yoon waxoon ne bu ko jaaroon dana wuute loolu it kilifa yi ko war a yëg moom alhamdulilah am na ci kilifa gu mag goo xam na waaye bi ma moom moom nee na nee luñ ci amati nañ nañ wax ca wax ko ca waxtu ñu ko wax dana ci taxaw incha allah allah loolu bokk na ci kon kaddu yi xam ne moom lañ jëlee a ci aéroport incha allah dañuy demaat rek laajaat yeneen kaddu ku mel ne sëñ Modou macha allah ndeysaan moom mi nga xam ne moo yàlla dogal mu demoon ci depuis talaata bi jàll mu am fa lu mat fukki fan tey ji mu ñëwaat ñu koy teertu nii ñu koy laaj moom dey ndeysaan demam gi ak dikk bi ak ban yëg-yëg la ci am daal macha allah ginnaaw bu nuyoo ba noppi jàngal ñu alquran karim asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. macha allah. suñu baa ñu ci jàmm rek. waaw. Ah. ci biir wax ji dégg nga la moo tax yow ngay dem di mu bokk ci xale dem di bokk ci mag ñi def lu waral loolu. bañ lay jaawale ak magge japp na manga nga ba buluwuñ njëkk koo ko xamne man la dimbali ci lu bare bare bare li nga doon def day wane ne kon mooy ni nekkuto xale dal yow sha allah lan nga jangate fof hmm? ah, yow. waxal ni ñepp ñepp wala yow yoy yëpp sa yoon nekku yow dal alxuraan ji daal rek mom nga nak man nga ah allah barakallah legi jangal ñu ay ayat insya allah ñu dégg bala ñu gëna a inshallah allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم ما شاء الله jërëjëf sëñ Modou macha allah dégg ngeen alxuraan jooju ñu laaj sëriñ Modou Niang mi nga xam ne mooy ab sëriñ daaraam nga xam ne bu yàlla dogaloon yiñ bëggoon yëpp am bokk na ci moom daa waroon a dem ànd gone gi comme ni nga xam ne ñu ko daan di fee na ak moom amoon na solo lool ndax gis nañ fi gone yi nga xam ne ñoo mujjee jógee Sénégal yëpp dem kenn ku ñu nekk ba muy dem am na ku mu àndal koo xam ne mooy coach am mooy moo moo mooy nekk ci wetam di ko wax na ko ni ngay def moytu lii ak bàyyi lii ba yàlla dogal gis nañ ñi ñi dem ñëpp ak place ba lu mu sori sori gis nañ ñoom danañ jël dara àndaale waaw ndax loolu mi nga xam ne mooy ab sëñ daaraam ginnaaw bi xale bi demee ba ñëw yow ñàkk dem gi lan nga ci yëg. di sant yàlla bu baax rek ci moom yëg-yëg biñ ci am mooy yëg-yëgu mbégte ndax réew mi li fi nekk ci daara bu fekkee barki dem rek maa ngi gis benn reportage bu ñuy wax ci daara na Sénégal mooy réew mi ëppi daara ñu Sénégal réew moom ëppi daara de tànn tànn sa daara loolu ak sant yàlla la. gannaaw bi ñu sant yàlla sax ci boole gi ñu boole rek ñu yëngu ci téere bi. Mm-hmm. di xëyee ko gontu. loolu rek ak sant yàlla amuñ ci lenn luñ ciy yëg ci li ci des lépp li li fi jaar xañ na dogal ba suñu borom dogaloon la rek ci ne euh, mbir mi ndax waaye sabab yëpp bu ñu mënoon def pour dem def nañ ko suñu alaaji bi xam na ci dara son na ci lool kon rek dañuy jàpp ne loolu suñu borom dogalutoon la yàlla nag moom lu mu dogalut loo ca jéem-jéem loo def def def du sotti waaw ko teg lépp def nañ ko lépp def nañ ko xañ na suñu borom dogalu borom bi rek la lu lañ ko mujj ñàkk dem gi am na lu mu koy am na lu mu ko wàññi wala loo xam ne tey ji boo demoon dana ko am waaw déet loolu ko wax ndax nit tamit dana dem sax yóbbaale ñam war a yóbbaale teewul du du am. Mm-hmm. waaye xañ na danga xam ne rek. Mm-hmm. Euh, comme ni ko suñu alaaji rek xale bu toll nii di génn di dem. Mm-hmm. ci réew moo xam ne déggoo seenu làkk. mosoo faa dem. macha allah mosoo fanaan yow kese cim néeg. waaw len daal moo ma ci moom suur bu njëkk ba mu àggee moom nee na ma néeg bi dama fi ragal. loolu moom frappé na ma te ma dalal ko ne ko nag fii moo gën a wóor sax man fii ma nekk ndax yaa ngi ci hôtel foo xam ne ñu ngi lay surveiller mënoo ci dara waaye mu ko defee ñaari fan ñett mu jeex mu jeex ndeysaan wax dëgg yàlla loolu moom waaye nag amun ci lépp rek dañuy jàpp ne dogalu borom bi la ci biir am njàngam absent boobu feeñu ci mhm. kon li ci des lépp dañ koy delloo dañ koy delloo ci ci ci dogalu borom bi mhm. suñ jaxfar bu su mi ko boole loon tamit lu man kooku moom laa bëgg ngeen xam ne Sénégal yëpp yoroon nañ ko fa njukkal ndax dafa dagg am njàngam am njàngam la dagg di fa dem ba biig Euh, trois heures de matin la fa la fa jóge mhm. teewul dem na fa ak Cheikh euh, sëñ Idriss moom sëñ Mourtada moom tamit féete ko comme bàyyi moom tamit ba biig trois heures de matin la dem mhm. la la jógee ci euh, aéroport ba waaye teewut li muy guddi guddi dem na gunge ko bam bam départ te lépp luñ fa man ak ambassade ambassade ba fa nekk mhm. jamono bi mu jàng jour bi mu jàng ñoom ñëpp ñëw nañ Euh, bim mu tamit ñom ñëpp fexé nañ ba jëlé ko fofu invité ko lepp luñu man dal ci téral ko wane né ko nak ñun ñi ngi ci sa def nañ ko kon loolu mom li ci des lepp pour dogalub suñu borom la rek waaye lepp luñu ma def na ci ginnaaw bi nga xamné ne yow demo est-ce que euh, jamono ji mom yaakaar naa mën ngaa ñàkk dem jumtu kay jokkay mom yomb na lool ndax daan nga fexé li nga xamné mo war ci digënté nit ak kum andal murafiqam ndax yang ko doon def waaw waaw wax deug yalla tamit yalla defal nañ ci tawfiq mhm. jamono bi mom soree amatu aduna bi léegi ben ben pokos la rek mhm. xaj ne dangeen du nekk direct. Mhm. Euh, ci ci ci di di gisee direct. waaye waaye sore waaye umbate amatul. Mhm. jamono bu jot buñ euh, balaa tëdd dees na ko woo. Mhm. lañ ko daan defal bañ nekk fii ñu jéem ci def. woo ay ay ay sëriñ soo xam ne sax ñoom tamit ñooñu ñu gën a xereñ ci wàll googu. ñoom tamit lañ ca mën ñu def. lii daal li ci li ci li ci am lépp dogalu borom bi rek la alhamdulilah macha allah ak cant rek la jërëjëf jërëjëf macha allah Serigne Modou jërëjëf macha allah jërëjëf jazakallahu xayran macha allah moom mooy sëñ daaraam ndeysaan mi ngi jugee ba Touba wàññi ko am jafe-jafe tuuti tamit mhm. ci ndax comme bi ñu dem moom amoon nañ Sénégal buy dem mu mën a wax ak moom bi ko tamit ñu teel a xam ne wàññi ko tamit danañ ci jël ay décision mhm. ñu teel wut koy ki jóge woon Guinée mhm. Bissau moom tamit ñu boole koog moom comme que avion bi Guinée Guinée lay jaar moo ko defaral ay yëppam moom ak si bi mu ñëw fii Sénégal tamit comme que Guinée moom aéro bu fa bu fa escalé ci avion bi ngay toog. Mm-hmm. du jar ngay wàcc. ba bi mu agsi loolu wax dëgg yàlla moom moo tax teel teel nañ cee jëpp yëpp jumtukaay yu ñu mënoon daal. Mm-hmm. ba du am problème ci aéroport yi. Mm-hmm. ten ko teel a jël def teel ko dox inshallah allah macha allah jërëjëf Serigne Modou machallah xamna cadeau yu mom machallah dafa am yu bari yo xamne munta ñak faaw ñu jël ko waaye wax deug yalla serigne daru Omar Kan ak ñoo ñoo fi Cheikh Omar Fouti machallah allah machallah Cheikh Omar <laughs> Cheikh Omar Fouti ci moom mom machallah di jambar wax deug yalla nek jangal kat alquran nek fele ci Mbour ñu gën ko xam ci kuréel googu ñu wax ahlul quran ma sha allah ak ci mbokk yu bari ñu wax ahlu saoud daoud ma sha allah ñu ay jang alquran di ay jambar nekk tamit ñoo xam ne jàmbaale moom mu jigé ba Mbour ñëw fi ngir tertu xale bi ma sha allah Cheikh Omar Fouti ñoo ngi leen nuyu. ñu ngi lay fay bu baaxa baax a baax Cheikhna. macha allah am mbégte lool. waye wax deug fi yàlla kaddu yëpp. sunu mag yi nga xamné ne ñoo fi jël kaddu. aggé nanu ko. ndax waxtu yi xawna xat te yoon wi sori na. Serigne Alhaaj daanaka wax na ci njàngat yi nga xamné mom lañ ci am ci li wessu waye xitam ak taxaway yi nga xamné war nañ ko am ci li ñëw. Euh, gën a jottali ñëpp rek ne seen réew mi yëpp kontaan mhm. ci suñu dong suñu doom ji. Euh, fam ñu wuutu woon. ba mu jàngee alquranul karim. Mhm. sëriñ daara yëpp ñu ngi ko doon xaar ca kanam. wax dëgg fi yàlla ndax kon lay tekki ne la ko waroon def na ko. Mhm. alquran ja jàng na loo xam ne kawe na sunu njortu. yal na yàlla buur bi subhaana wa taala barkeel ko bu baax baax yal yàlla barkeel ko. Euh, yàlla saxal ñu ci li nga xamante ne moom mooy liggéeyal alquranul karim. di ñaan kilifa yi a jàpp. ci li nga xamante ne moom mooy ndaw yi alquranul karim yi rawatina su nuy jógee ci réew mi di dem représenté ji Sénégal gépp la ñuy représenté ci condition yi nga xamante ne moom la ñuy demee mhm. waaye ak taxaw ya nga xamante ne war nañ leen ko taxaw mhm. ndax ñun ñi nan koy bëgg léeg-léeg mhm. suñu kaddu du fa àgg wala sunu doolee du ko mate te tey ji su jëlee ndam li jël raaya gi drapeau Sénégal moom fa mu toog di jàng drapeau Sénégal lan fay affiché kon su gañee drapeau Sénégal lay yëkkati andi ko fii mhm. kon wax dëgg fi yàlla njëkk ko lancé njiitu réew mi mhm. ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk mhm. wax dëgg fi yàlla ñu gën caa jàpp waaye gën caa lu bu baax a baax a baax ndax alquranul karim moom mooy nuuru hidaaya alquranu سيظل نور هداية موم دا فاي ساخ دي نيك ليروك نجوب اك لو منتي خيو تي القران الكريم جي موم موي دستور امتينا مدال اجيالي ليغا خامتاني موم موي سونو ديسكور موم مودي القران نداختي نور takaffalahu l ilahu bi xifdihi min an tanawalahu yadul andali mhm. kon mooy téere bi nga xam ne yàlla ko laa balal boppam mhm. teel ko boppam mhm. xale bi daal di koy jàng ca daara ja ba man ko war ce wuutu Sénégal gépp kon loolu ñu ngi ciy woo kilifa yëpp seriñ Modou itam ñu koy jaajëfal di ko euh, wax dëgg fi yàlla ndokkeel bu baax a baax ndax moom moo jàngal Serigne moodu mbakke mi waaye itam moom moo jàngal Moustapha Touré mi nga xam ne moom moo jël concours national bi weesu kon wax taxut mu demee noonu ci wàllu condition kon ñu ngi woo autorité yi bu baax a baax a baax njëkkee ko ci Serigne Abdoulaye Dia mu gën leen jàppale bu baax moom mi amut oto ñu ngi ñaan ab Abdoulaye ja ci turu Serigne Daara yeeg ci barkeb alquran mu mayal ñu ko oto moom moo Modou Niang mii te di wax soppee alquran yëpp rawatina ñi fa bëgg yóbbu seen njaboot kon day tekki ne Daara ja wax dëgg fi yàlla alquran ja wér na am na bànqaas bu muy ubbi fii ci Mbuur ku bëgg yóbbu sa njaboot numéro bi dinañ ko affiché incha allahu taala nga daal di woote yóbbu fa sa njaboot allahu taala baraka rahman fiikum wa jazakum xayra jërëjëf Cheikh Omar Fouti macha allah lan ngay soñu sénégalais yi ban taxawaay li a am ci lii gën a karim mooy la waajo waxoon rek ummati alquranu hablu najatina fa tamassaki bi uraahu kay laa na aduna dafa jël yoonu lap ñëpp gis nañu mbon gi nga xam ne moo tasaaroo ci àdduna yàqute bi ci am mm-hmm. yàlla dina feesal sawara mm-hmm. waaye ku ca bëgg mucc mucc ci àdduna mucc àllaaxira ngooyal ci alquran mm-hmm. maa ngi woo senegal yëpp la nga xamante ne moom moo ñëw ci alxadith al mawquf ibnu Mas'ud wax ko soo bëggee xam sa bëgg yàlla ak sa bëgg yonent bi sallallahu alaihi wasallam fu mu tollu xolal sa bëgg alquranul karim na ñepp gëna bëgg alquran gën ci ngoy di ca def seen alal di ca def seen xalaat di ca def seen xam-xam ñun ñepp ñu and dundu alquranul karim baraka rahman ci amru Omar Fouti ma sha allah ma sha allah xamna naa kaddu di yeex nak ta xam nga wax deug yalla sénégalais yëpp ñoo ngi doon sétane bi seigne Modou Mbacké démé ñepp nga doon gis jang mam ñoo jang yaakaar ñi nga xamne dañoo melna man ñepp seen àlluwa neew ñepp jàppoon nañ ñam moom war naa jël premier ta am jang ne kep ko xam deg na ko tak du ñak nak wax deug yalla Euh, ñu layal suyux yi nga xam ne ñoo teewoon foofu doon attee wax ci leen loo xam ne la moo tax njàng mi xam naa du ñàkk ñu woo ku mel ne si Ibrahima Dia du ñàkk dana am ay ay ay settantal yu sew a sew yoo xam ne moom jàpp na ne buñ ko buñ ko buñ ko toppee mën nañ ko cee daaneel ba tax tey jii bu jëlun bu andiwut bu bu bu bu wu ndam man ñu japp ne yoy mo tax mu ñak ko andi mom ci Ibrahima di jambar nek ci waru ma sha allah moy mooy sëriñu alxaaji Cheikh Dia ñepp xam nañ ko sha allah muy jambar nek liggéey bi ñu mo taxaw ni serigne Ibrahima ñu ngi lay nuyu. waaw kay ñoo ngi lay fay basirou mhm. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi sante yalla bu baax baax. alhamdulilah. di julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam. di ndokkeel suñ. Euh, dong bi suñu rakk bi suñu doom ji suñ Modou ci lim defee woon ni macha allah Ibrahima Dia xam naa yaakaar na dégg nga la wax xam nga ñu bari dégg nañ gone gi bi muy jàng taxawut nak nak lu kenn dégg ko muy def loo xam ne feeñ na ci fi ba pare résultat yi bi mu génnee ñëpp dégg ñu ne bokkut ci juróom yi njëkk yi ñu tànn loolu lan moo ko waral. loolu de euh, jongante concours moom bu alquran. Mhm. loolu nag daanaka du ci kéemaan nag. Mhm. nañuy sóoraale ne mhm. yëf yi ajuwut ci jàng ba jeexal te nak nak nakki woo taxaw eh, sëñ moodu mais ka jugee Mauritanie lu tax bokkut ci cinq yi jaaxal na ko te jàng na njàng mu ci mi sëñ Modou moom moom sëñ Modou ñang me ñang mhm. ki lu tax duggut ci cinq yi lool lool loolu jaaxal jaaxal na siñ Modou lool waaw ah. mhm. eh, am na ku jugee Éthiopie kooku itam boo dégloo am njàngam lu tax duggut mën na laa jaaxal am na ko jugee Niger lu tax duggut mën na laa jaaxal am na ko duggee Mali ki même ki duggee Mali loolu nag li ñu ciy déggee mooy ab ab buuxante moom bu amee buuxante bu tara tara tar bu amee ponkal mën naa daanu loolu rek la kon musaabaqa noonu la bu fekkee musaabaqa bi da niveau bi daa kowe lool lool lool maanaam ku ne mën naa génn daal waaw boobaa génn gi firndeelu ne yow mënoo woon a bokk ci euh, ñi ñi tànn waaye yàlla moo def euh, yëf yi tàng lool xëccoo bi teeng tar faw day am ñu génn ndem dañ koo limité mu yem ci juróom moom mm-hmm. faw de am ñu génn génn boobu nag mën naa doon ku mm-hmm. ko defee it doo xam ña doon atte ñoom mm-hmm. yow ni nga rafetloo njàng mi ak ni ko yéemee ña atte yow doo xam ñoom nuñ xaymaa njàng ma te ñoom ñoo la gënoon a jege xale ba euh, ñoo la gënoon a jég jege euh, kàddu gi waaw ay mbir yoo xam ne jombul ñoom moom lañ ko toppe ndax buñ ko toppee woon utoon dara moom lu métti métti day dana dugg kon ñakkut luñ ko toppee waaye nag taxaw fii nag di xuus ci njàng mi moom <laughs> du ko jar. macha allah. waaye njàng bi moom daal moom. liñ ko liñ ko ñàkkul liñ ko mën a toppee. loolu xanaa ña fa nekkoon lañ koy laaj ba mhm. ndax lu ci bari bu dee musaabaqa international yi. bu mooy ñi ñi ñeneen ñi duñ duñ génn seeni ra même boo ko laajee sax duñ la ko jox. waaw ah. waaw moom. Euh, mom dal nañ sant yalla bu baax dal li am solo moy mom def na liko war lepp bu fekke am na yoo xam ne yu war a laabi laabiranti ak serignam la yaakaar naa mbokk yi ñu ci bari deg na jang mi ñakku ñoo xamni am na yuñ ci setlu yo xamni bu fekkon lenn dal la setlu mom hmm. nit ñi concours ak concours yi dañ ko war gëna nos dañ ko war gëna nos war ñoo bàyyi ab xalé mu dem jang ba wacc rek ñi nga xam ne xam nañ dara ci am njàng kenn ku ne toog ci ruqam am ci ay genn ki boppam loolu li ñu ciy déggee mooy mbir ndem mbir mi bu demee dañ naan suñu mbir la ñun ñëpp mm-hmm. nañ nañ nosu nosu gu gu gu gu fullawu daal te faydaw lu mel nii bu amatee mm-hmm. yaakaar na am na nangami nit ñoo xam ne buñ ko samoon mm-hmm. ñàkkut yuñ ko déggal yoo xam ni du ko def man na am mën na ko bañ a def léegi nag loolu xëy na dañ ci gën a waxtaan rek ñun ñëpp jàppalante ci bu macha allah barakallahu fiik jërëjëf Cheikh Ibrahima Dia ak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci aéroport international Blaise Diagne mbokk suñu daara yaa ngi fa wax dëgg yàlla jataay biñ ko toppee ñun ñëpp kenn ku ne bëgg a jàllale jàllale kàddoom euh, kàddu yi dana gën a bari te wax ji macha allah njariñ ñi ñu ci gënoon bëgg nit ñi mën koo jot mën naa gën a mën te wax dëgg yàlla dañoo bëgg ñi nga xam ne fekkuñ fii ñu jariñu ci bu baax a baax macha allah wax dëgg yàlla mbokk yaa ngi ni waajuram yeeg ñëpp ñoo nañ mbokk daaram yeeg sëñ daara yeeg mbokk am di jàmm yeeg ñi bëgg alquranu karim yëpp nag fi macha allah sëñ daara Omar kan moom wax dëgg yàlla moom moom moom wax dëgg yàlla jàmbaar la wax dëgg yàlla yu mel ne moom eh, wax kii maa ko naka tooñ maa ko bu ñu àggee fekk moom sëñ daara Omar kan maa jox 10 000 allah mu ñëwee fekk ko fi tabaaraka la gis nga ko ñun ñoo ngi jógee Touba waaye moom mi ngi ba Ndakaaru ñëw fi ngir lan fekke ci xale bi ma sha allah kon nak alhamdullilah rabbil alamin ñoo ngi sant ñi nga xamne ñoo ñëwoon fi aéroport international Sidi lu melne Baytul Quran ak lu melne Rafa TV mi nga xamne mom lañu la jóge ba ci Touba ñëw fi ngir lan ngir ñom mbektum alquran mi nga xamne ñom mom lañu seen liggey lépp ñom alquranu karim la moy ñaari kër yi moy moy kër yo xamne wax deug yàlla Sénégal yëpp war nañ cee jàpp bu baaxa baax fexe ba seen liggey yi ñu def ndax ñom déplacement yi ñu def yëpp saa yu amee ñoom dañuy ciobaré buñu gisé kuy dem ñu ànd ak mom buñ ko gisul ñu fexe ba gaay yi leen dañu ñu fexe ba ñëw waaye duñ xaar duñ ñëk ñoo xam ne dañuy xaar ñu leen leen woo ñuy laaj naan nangam geen ñuy jox comme ni nga xam ne ne bis ni que tey bari na ñu fi ñëwoon waaye leen fa indi leen dong moom ñu xamoon nañ ko waaye wax dëgg yàlla waaye nekkul bëgg alxuraan goo ne moo nekk ci ñoom bëggoon information jàll waaye nag loolu ñun bëgg nañ ko ñun bi su mel ne ñun sëñ daale bëgg nañ bu amee ñu fexe ba nit ñu yëgal ñu ko waaye nag ñaari kër yi laay waxee moom nañ fexe ba nit ñi sénégalais jàppale leen ñu jëm ca kaw ca kanam macha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu